asubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ah, mbokki julliti mbokki àddina gannaaw buñ ñu yàlla julli ci Seydina Muhammad ah, seen mbokka alxaaji Cheikh Tidiane ak Essa Mbaye ñoo delsiwaat fii ci Sahel Network TV pour isil leen seen waxtaanu koor ñu ngi ñëw Sahel Network TV nag ñu nekk fii ci Banjul ci capital bi ah borom kër gi di Mr Aboubacar Bathily ànd ak soxnaam Oumy li tey jii nag di ñeneen teeli fan ci weeri koor wi ñu ànd ak oustaz Cheikh Tidiane Guèye weeri koor digga ñu ne fukki fan yu njëkk yi mooy yërmande kon bëggoon nañ nga waxtaanal ñu ci fukki fan yu njëkk yi tey ci lundi ji mooy ñeneen teeli fan ci koor gi ko defee rek nga laayee ñu biir wax ñu njëriñi koor ak naka lañ war a jëflante ci koor bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil arbab wa muqaddiri al asbab wa xaaliqi xalqihi min aturaab wa jaacili suduri lawliyaihi al ahbab qasaa'ina al asraari wal ahkaam wa sawarana kama yasaa'u fi l arxaam subhaanahu wa huwa al azizu al xakim al mudabbiru al xabiru al alim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin gannaaw ba ñu sant yàlla yàlla mi nga xam ne moom rekk moom lañu war a sant mooy wax ne la in shakartum la addidanakum wala in kafartum inna adabi la sadid ñu koy sant buur boobu nga xam ne tey li nu yàlla maye kattan ba ñu ñëwaat fii tey tabaarakallaahu ci ñeenteelu fan ci weeru koor wu màgg wi nga xam ne tey muy bésu altine muy bisu lënd ñu nekk fii ci tabaarakallaahu Sahel network network TV nga xam ne tabaarakallaahu mu ngi fii ci Banjul ci capital bi ni ko suma mbokk sama xarit alxaaji Issa Mbay waxee léegi ñu nuyu sunu tabaarakallaahu nga xam ne ñooy borom kër gi nga xam ne mooy Sahel network TV muy Aboubacar li ak soxna Ummi li ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen ziyaara ci weeru koor wii nu toll ci weeru màgg wii nu nekk ci weeru yërmande wii nu nekk bu ko fee ñu nuyu nag tabaarakallaahu ñëpp rek képp kuy seetaan online TV bi mm. nga xam ne tey ba bitim réew tabaarakallaahu ñu ngi jot seen ay woote jot seen ay kontante ci tabaarakallaahu waxtaan woo xam ne amoon na fan yële ci aljuma bi tabaarakallaahu kon nag bu ko defee kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen wax ne rek topp leen rek. Sahel nadok TV bi da ngeen xam lu bari bari bari ci sen wéru koor waye hit da ngeen ci xamé kan moy sayyiduna Muhammad alxaaji Isa dafa melni dafa am lool laccé ta moy li nga laccé tabarakallah ci wéru mag wi nu nek nga xamné aljuma junjun nañ ben aya bo xamné yàlla rek sun borom subhanahu wa taala mom rek mo meuna waxé nonu mo xamé nonu noonu ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun hmm. te weeru koor ci boppam ni nga laajee laaj bi yaakaar na noonu lañ koy toppee ba weeru koor biy jeex weeru koor li ci ne xaaj isa dafa rëy yàlla dafa jël weeru koor def ko ñetti xaaj ni nga ko laajee ci laaj bu njëkk bi tey xam naa sunu waxtaan ci bisu lënd bi ci ñeenteelu fan ci weeru koor wi hmm. tey ci fukki fan yu njëkk ci weeru koor yàlla ne def naa ko awaluhu rahma hmm. muy njëlbeenu fukki fan yu njëkk yi yërmande la mm-hmm. yërmande nag xaaj isaaw mooy lépp lu nit di def mooy yërmande mooy lépp ci àdduna yërmande la ci weeru koor fukki fan yu njëkk yi yërmande la ci kan mooy ci yàlla ak jaamam bi waaye yërmande la ci kan mooy ci jaam yi ñoomi neen ñuy rëmante mm-hmm. maanaam kon yàlla dana yërëmee xeetu Seyduna Muhammad ci weeru koor mooy fukki fan yu njëkk yi wax nañ ne fanu weeru koor mooy comme bañ tàmbalee ca ajuma ajuma bu fan bu njëkk ba nga ñëw samedi ci fanu ñaareel bi nga ñëw dimanche ci fanu ñetteel bi ba ci lundi tey nga xam ne tabaarakallaahu mooy ñeenteelu fan nga yëg ne première fan bi yàlla ne danaa yërëm juróom benn téeméeri junni كيف ما نام تي قيت قيتو يونت الله محمد بن فان بني دانا يرم جروم بن تيمير جوني اسكي لغي نك بو بو بو بريمير فونو اديوما بي باسي تي ساندي بي داي دوبلي هاد موي ليم يرمون تي فان مو نيك بي داكاي دولي نون لا كوي ديفي نك با الى اخر ليلتي سهر رمضان با تي موجو فان وير كور bésu Laylatul Qadr moom bu ñëwee yàlla day day ful lépp lu mu doon def ci fan bu njëkk bi. Hmm. ba ci fan bu mujj bi. loolu dana ko def juróom-ñaar fukki junne yoon loolu kanaa kon xeetu yonent yàlla Muhammad yëpp dugg nañ. est-ce que kon xeetu yonent bi fukki fanu njëkk yi. Hmm. yàlla defal na ci xeetu rasulilaay muy awaluhu rahma muy fukki fan yu njëkk yi ci weeru koor muy yërmande la yërmande la ci ñan yàlla dana ci yërëmee xeetu sayduna Muhammad صلى الله عليه وسلم واي خيتو يونتي بي هيت نيوم فوفو هيت وار نان فا جانغي نيومي نين ني يرمانتي دغلا يرمانتي تي لان نك لا جيسا يرمانتي تي مانام دوم ادم بي يونتي بي واخنا حديث ني نين نين ني ماك ني سون يرمو ني نداو ني ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء Mm. yéen ñi ne ci suuf yërëmante leen ñi ne ci kaw yërëm leen kon nga déggee ci ne kon kenn ku ne ki nga tene rakk bu mag bu yërëmee rakk papa yërëm mag pap maanaam magu pap yi ñu ni neen ñu yërëmante loolu la ñuy njëkk a jàngee ci première fan waaw yërëmante ci nan ci dimbalante dimbalante ci nan ci kenn ku ne loo tenee sa morom nga jàppalee ko ko mm. ci kenn ku ne jàppale sa morom nag nekkul même alal rek mooy jàppale déedéet mooy esa nit danga ko dimbali ci xelaat hmm. nit da nga ko dimbale ci xel nit da ko dimbale ci lu manqué nga jàppale ko ci loolu kon nga yëgee ci ne weeru koor wii hmm. mooy yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo wax yonent bi sallallahu alayhi ne ko fukki fan yu njëkk yi def naa ko muy yërmande hmm. yërmande nag ñun moom la ñuy wut ci yàlla loo tax bi ngay nuyoo sa asalaamaaleykum loo ca teg wa rahmatullahi rahmatullahi yërmande mm-hmm. mooy ñun moom lañuy wut ci yàlla yal nañu ko yàlla defal ci weeru koor wi kon kon ci fukki fan yooyu mm-hmm. yërëm mbenn gi nga xam ne yàlla def na ko ci fukki fanu yu njëkk yi ñu ngi ñaan yàlla ci barke fukki fan yooyu mm-hmm. yàlla yërëmee ci mboolem àdduna bi yépp ba nattu bi teg sunu kaw nii nga xam ne tabaarakallaahu mooy luy ay di jàmbat mooy coronavirus. coronavirus yàlla teggee ko yàlla yërëmeenul ci loolu ci barke fukki fanu njëkk yooyu. kon fukki fan yooyu daal hmm. mooy yërmande la nga xam ne bokkul ak fukki fan yi ci digg yi hmm. bokkul fukki fan yu ci mujj yi mu yu mujj yi jërëjëf oustaz kontaan nañ ci ci ni nga ubbee waaye ñu ngay fàttali mbokk yi ne dañ toll si jamono boo xam ne hmm. ah, jamono bu ñoo dunda la ànd loo xam ne yàllaa ko fu isi hmm. waaye nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk wàlli faj gi hmm. am na lu ñu tegtal ñu jëfandikoo lu mel nii lii sanitizer la hmm. danga koy def si sa loxo yi riib ko ci oustaz ko defee barakallah lépp loo xam ne moo nekkoon sa loxo ci xeeti jàngoro ah yàlla na la ci musal. tabarakallah wax nañ tamit ne boo leen demee kër gaa ngi di jëfandikoo lu mel ni ndoxa omo ndoxa saabu ci wàllu raxasu usas bu ñu jógee si loolu. Mm-hmm. fukki fan yu njëkk yi yërmande la. Mm-hmm. doomu aadama yi jullit yi. Mm-hmm. naka lañ war a yërëmante naka lañ war a jàppalante. loolu bëgg naa nga leeral ko. ni nga ko waxee rek mooy loolu alxuraan moo ko wax nu ñuy war a yërëmante nan lañ war a jàppalante loolu yàlla moo nu ko waxal boppam ci weeru koor lu mu wax a taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwaan kon jàppalante gi mooy ni ma la ko waxee ci bi may daane noonu rek la amee mooy jàppalante bi ci nan mooy nit ku ne kenn ku ne rek ka nga dimbale ko dimbale ko nan nag ngay xamee ne diw yaa ko tene mhm. ndax it loolu yomb la xam bari na koo gis tey mu ngi dox nga gis ko mu nekk ci otoom boo foogee ne sa yow mën nga dem ba foog ne kooku la tene fekk yow yaa ko tene maanaam gis nga doom aadama yi yàlla ni muy waxee ñun ci alxuraan lu mat méthode boobu nit ñi di ko xam tey da ngay gis doomu aadama yu bari balaa ngaa dimbale nit ki rek dafa ñëw ci yow sàkku ci yow ndimbal mm-hmm. déedéet alxuraan bi muy wax sa yàlla ndimbalam bi mu wax jullit bu ne ku am nangam ci alal nan ko génnee asaka bi muy wax ki ñu koy njëkk a jox mooy ki nga xam ne mooy alfaqir mooy ku ñàkk mm-hmm. ku ñàkk mm-hmm. suñu waxee ku ñàkk mooy koo xam ne tey mooy ñun ñi ñëpp Gàmbi tey bu dee hundred people la mooy ninety yëpp dañoo ñàkk maanaam ndax ñàkk mooy lan am nga lii waaye am nga loo mankile te képp ko am lii am lu mànkile lislaam day bëgg li mànkile bu mu dem di ko ñaani mbaam mu koy lebi mm-hmm. la mànkile nañ ko ko jox moom mu comfortable kon nag al bi moom lañ wax nga njëkk koo dimbalee balaa ngaa dimbale miskin foofu mm-hmm. dégg-dégg ñu bari sax dangay gis ne ndax ki ñàkk dem bay yalwaan mooy miskin bi mm-hmm. amul añ amul reer amul ndékki waaw taxaw ci mbedd mi ne lu waaye am hmm. maa ngi saraxu te yàlla tax hmm. Hmm. féeg tollu ko foofu yàlla ne am na ku ne ca kër kër mu nga ci kaw otoom mu nga sol yére yu sell soo ko gisee nga foog ne kenn ëppul ko dara yàlla ne fexe leen gëstu kooku ba leen ko xel ndax gor la te bëggu la dem fenn nu li ko xamal soxlaam yàlla ne jàppale leen ma kooku kon li ngeen may génneel ne man sama cër la man yàlla inna ma sadaqaatu lil fuqaraa i wal ni hmm. gis nga fuqaraa la jiital foofu hmm. kon léeg nga dëkk ak nit sax ndeysaan mu nga mu nga dëkk tabax bu rafet wala yaa ngi gis mu nga dëkk ca kaw étage wala yaa gis mu ngi luwee ci kaw étage wala yaa ngi gis nàngam lépp mu ngi dem di ñëw fekk sutura lay doxee fekk maanaam mu ngi doxee noo xam ne bëggu la wax kenn soxlaam pour mu xamal ko ngir ragal ëllëg nga xoolee ko ko ndax koo laaj koo laaj. su la joxee am nga kersa. su la joxul rus nga. dëgg la te laaj boo demee ci téere yi dañuy jàngale ne law su ila naasu ak turaab la ma law. Mm. wala la tamal law. Mm. nit ñi boo leen doon laaj suuf ñaan suuf bët bu set sax ñu yokkal. dëgg la ñu ne diw dafa mën a ñaan. dëgg la suñ la séenee ngay ñëw sax wala ñu gisee sa miss call mm. ci téléphone bi rek nga xam ne Tidiane Gueye mooy call ni. rek nga gis. kii daf may war a wax soxla daf may ñaan nga gis mu jël téléphone ba def ko silence wala mu jël téléphone ba fay ko wala mu jël téléphone ba ne doom ji wóoyul waxal sama papa waxal euh, ustaas na ko dama génn hmm. loolu yëpp lan pour daw ki lay laaj yooyu nag alxuraan def ci teel a def solidarité boo xam ne pour nu war a dimbalantee balaa ñoo àgg ci loolu xam nga ki nga xam ne am amul kersay laaj hmm. moom mën na dajeeg ba ci li mii na ko may ma fifty dalasi wala may ma hundred dalasi yoo xam ne danaa ko dundalee sama njaboot. Mm. kooku yàlla may na ko xoriya bu mën na koo def te dara du ko ca fekk. Mm. gis nga. Mm. waaye ki nga xam ne moom dafa ñàkk kooku mënul loolu. mënu ko xam nga lu muy xalaat. kii su ñaanee wala tey sa yow yaa ma may sama doom dajeeg sa doom. mu wax ko na ko sa papa ñëwoon na sama papa di ñaan si wala léegi léegi nit mooy may nit ba noppi. Mhm. dem ca marché ba ne diw de. si wal bu taxuloon ak man du togg démb. est-ce que que. ak yàlla bëgg sutura. ak yàlla moo bëgg ku dimbale nit. Mhm. xam nga lu tax Ibrahima yàlla tuddee ko xaritam. Mhm. Ibrahima xalilullah xalilullah xam nga lu tax yàlla tuddee ko xaritam. ñett la. ñetti yi yonent yàlla Muhammad dafa ñëw indi ko indi ko ci ci ci biir biir sunnaam mooy sunna mm. Seydina Muhammad mm. ndax bañ ko laajee sa sunna mooy lan mu ne almahrifatu raxsu maali wal xaqlu asli di wax ju gudd Ibrahima ñetti tax yàlla def ko xata xam nga mooy ban bi ci njëkk mm. muy itaamu taam yëkkati ñam di ko jox nit ñi di leen dimbale gis nga Ibrahima bu xëyaan togg lekk bu toggee lekk ñam nii ba noppi dana dox ci penku bi lu tolloog ñeent fukki kilomètre ñeent fukki mètre dana ko dox fii ci penku bi mm-hmm. su dajee ci yoonu féeri bi koo xam ne gan la kuy dem mu gàttandu gan gi ne ko kaay sama kër nga añ ba noppi door a dem su gisul fii gan mu dem ci wàllu wàllu Serekunda bi walla xarfu bi mm-hmm. dana dem ñeent fukki mètre mu dem ci wàllu pale bi fii ñeent fukki mètre mm-hmm. dem sa wàllu càmmoñ bi nii ñeent fukki mètre su gisul kenn mu jël añ ba dëpp ko continuer woor kontine hmm? woor ndax gisul nit ndax gisul nit waaye gis nga yàlla ci xormaal doomu aadama hmm. yàlla ci xormaal nit bés dafa ñëw mu dajeek moom Ibrahima koo xam ne bokkuñ diin même na ko noo tudd mu wax ko turam mu ne ko ah yow yow ma suma ñam yi man man man ku doonoon muslim ci lekk <laughs> yàlla ne ko ah, yàlla mu ne man na ko Ibrahima ki nga wëññi na ko du muslim ba tax nga ne doo ko jox sa ñam ñi ñam wi yaa ko moom wala maa ko moom mu ne ko yaa ko moom mu ne ko man maa la ko jox wala yaa ko jox sa bopp mu ne ko eh, eh, eh, yow yaa ma ko jox mu ne ko ki nga dàq ngir ne du muslim damal dabi ko mbaa ma fal si tur si tur yonent yi est xoolal yàlla ak Ibrahima nit ak xaritam yàlla wax xaritam na ko soo demul dabi kële danaa effacer si tur si tur yonent yi te ci ulul am sami la bokk Ibrahima daw dabi ko waa ji na ko ni nga ma toroxalee du ma ñëw sa kër naan maa ngi lekk mu ne ko yàlla moo ma sant ma ñëw jël si la waa ji na ko yàlla moo la sant ngir man mu xeebu mii ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah kon nga yégee si ne jullit ñi li ñu war a jàngatee ci dimbalante bi mooy gis nga jikko yu rafet yooyu nga xam ne da nga jël mag ñi bu njëkk ba da nga gis buñ xëyee suba teel jël bool wala jël këll def ci ceeb bam fees jël tawsan dalasi gas bir ci bi ba ci bir dugal fa tawsan dalasi ba wala dugal fa two tawsan ko sa dom bi nako demal ba ci diw sangam nga joxal mako ko ko gis nga koku bu ñewé di soti ci bi rek xaliss bi ne veul da fay tiit koku lum la ñaanal yalla def ko tax ñu daan jël malo mi digal ci xaliss bi sul ko ngir sutura mm-hmm. ngir sutura duñ bëgg sax yow miñ koy jox nga xam ne ñoom ñoo la jox lii. gis nga yooyu jëf yooyu day tax tàggat xolu doomu aadama nga am yërmande. da nga yërëm gis nga yooyu ci ngay tàggatoo ba meneen tànn bi sax koy yërëm a dëggaat. da nga ciy tàggatu ba mbaam mbaam mi nga yor. Mm. di ci yeb da ngay am yërmande ci kawam ba boo koy sëf sa nga xam loo koy sëf. Mm. ci ngay amee yërmande gis nga weeru koor nag gis nga yërmande yërmante googu ci loolu la ñëw pour jàngal suñ jikko yi mm-hmm. même xar mi nga yeew ci kër gi bu weeru ko tàngee nga mar yëfi xiif xar mi naanul xar mi lekkul waaye nga yëg ne ni nga xiif yi yàlla ne yëgal ne baaxima bi man maa ko bind yëgal ne ni ma la ni ma la santee lii moom it noonu laa ko sante leneen gis nga xoolal tey jëflante yooyu xoolal Ibrahima ak ni mu mm-hmm. yàlla yedd ko ngir koo xam ne tey mu ngi ko beddi ne du jullit waaye ñun léegi ñun jullit yi ñu ñooy beddi wante mm-hmm. dimbalante ñu ngi neen ci ñun neen amatul amatul xam nga léegi lu nit di xëy def mm. da ngay gi ko xëy ñëw dem ba agsi si kër jàmbur di vérifier ba xam ndax lan lay ndëgoo tey mbaxal lay togg walla ndax day togg day togg day togg euh, maafe wala day togg nangam di lëññatuwante mooy ci ay kenn ku ne di xool ëyi bu nitam ëyi bu nawleem dem tasaari ji ko wala dem waxi ko kooku loolu du dimbalante dimbalante daal alaaji Essa mooy mm-hmm. li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa nawle yépp ki la bëgg ak ki la bañ mm-hmm. ki la bëgg yéene ko jàmm ki la bañit yéene ko jàmm mm-hmm. lii su amee rek tabaarakallaahu yërëmante am na loo tenee nit dimbal moom wërsëg ci loxo yàlla la ne léeg-léeg nga am wërsëg nga mën a teneen nit dimbale ko loolu yépp ñu ngi koy jàngee ci weeru koor wii weeru koor wii nga xam ne nag ni ñu ko waxee mooy fan bu njëkk ba ba ca euh, fukkeelu fan ba yépp yàlla def na ko muy yërmande ci xeetu sayduna muhammad hmm. ndax ca fan bu njëkk ba la yàlla wax safara mooy euh, euh, ridwaan ne ko tëj leen buntu safara yépp waaye ubbi leen buntu aljana yi gi nga aljana bët bu set tey ci weeru koor hmm. ñeenteelu fan bi hmm. bët bu set malaaka yi ñëw fëgg kapet yi urul ay ni yëngatu xam nga urul ay ni ñoom buñ génne lan la ñu wax hmm. fan bu ne dañoo génne ñaan yàlla yow yàlla ñu ngi lay ñaan ci xeetu Seydunaa Muhammad ñii woor weeru koor yi nga may ma ci jëkkër xanaa kon loolu tabaarakallaahu ñun ñun yàlla yërëm nañu yàlla defal nañu te yërmande gi ci gën a foor ma xool ko tey mu frappé ma gis nga xeeru njëkk yi xam nga nuñ daan wooree xam nga hmm. xeeru njëkk yi nan lañ daan wooree ñoom dañuy woor gexe gi gexe la ñu tàmbale ba gexe ñëwaat hmm? gexe mooy bu bu bu bu huit heures jotee ci guddi. vingt heures ci guddi. ci la ñuy tàmbalee dootuñ lekk dootuñ naan ba geexee ñëwaat. li ñuy lekk ñu. twenty four twenty four hours. ci la la ñuy li. ñu mos continué waat mos continué waat waaye xoolal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñëw te nag li ci gën a garaaw ci ñooñ ñooñu. Hmm. weer yooyu yëpp ñu daan woor kenn du si jege soxnaan kenn du ci def nangam kenn maanaam xam nga yow boo dogee lépp lu ñu la terexoon mm-hmm. ci bëccëg bi may dagalal na la ko ci guddi gi ñoom na yépp lañ leen xaramaloon xawlal xeetu yonent bi mm-hmm. même bi ñëwee sa yàlla ci njëlbeen xaw na leen koo tere comme dañuy lii waaye nag bu kenn jege soxnaam bu guddi jotee bu kenn jegee sa soxna nàngam waaye saxaba yi nga xam ne dañ dëgg woon mhm. am na si ñoo xam ne biñ defee guddi gi li nga xam ne yonent bi terewoon na ko yàlla wax ak yonent bi ne ko am na de lu ma tere waaye am na sa gars yi ñu koy def mhm. am ñu taxaw ci bunt bi di wax yonent bi ne ko démb de lañ ñu tere woon dañ ko def yàlla ne leen al an aaya ñëw na léegi di ma wax ne nàngam waaye nañ toog bi ñu toog balaa jant bi so yàlla ñëw wax yonent bi na ko fa aan al aan léegi léegi daganal naa ci yéen su ngeen dogatee man ngeen a jege seen soxna man ngeen a def lépp lu ma xaraamaloon ci yéen ci seeni soxna daganal naa ko ci guddi gi kon loolu yërmande weesuwu loolu. kon oustaz dafa mel ni. ñooñu nga xam ne ñoo daan oor 24 hours. te bu guddi jotee yàlla wax leen ne bu leen jege seeni soxna. ak yu demee noonu. xiññata lañ daan def yàlla si la sukkandiku isi yërmandeem ba isi aaya ba léegi ñuy oor suba ba guddi guddi gi mu dagal nañu ndax si loolu la yàlla sukkandiku maanaam pour wan la rek ne xeetu yonent bi li leen yàlla defal defalul ko kenn dëgg la kuntum xayra ummatin ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkar et ñun yàlla ci yonent bi rek la sukkandiku maanaam pour lim ñu defal ni teraanga ji. Hmm. ci yonent bi soppam bi sallallahu alayhi wa sallam. ci la sukkandiku. ci la xool ndax ñun yonent bi bi mu bokkee ci ñun rek la gën mbooleem ku dul ñun sabax naa. Hmm. man siwaa naa xayra sabaqin maanaam ku dul ñun xeetu yonent bi moo la gën la tax nga gën na xam nga kan. Hmm. muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xam nga xeetu njëkk yi ku defaan bàkkaar nu ko yàlla def ci yow. ku defaan bàkkaar ci ci jamono yu njëkk yi dañ koy bind sa buntu neeg ñepp xam ko so bañé genn kër gi ñu bind ko ci buntu kër gi hmm. so bañé na ñu bind ko sa leer mu gëna leer légui suñ ko bindé sa yaram xam nga no daan tuubé ba ba yalla yàlla jéggal hmm. da ngay dem wuti garaate garaate yi manam hmm. comme xéru ñaga fi di garaat sa yaram di ko xoss di ko xoss ba deret di genn nga ni yalla do la nangul sa tuub xoolal ñun xeetu yonent yàlla Muhammad da ngay doon ab imaam doon ab ustaas toj dëkk bi def lu ne yàlla suturaal la loo tax yonent bi lu muy foor foor ñaan na yàlla loo xam ne sax yàlla may ko xam nga mooy la mooy ñaan na yàlla na ko bu ëllëg yoomal xiyaamee maa bëgg booy rek la suma suma sew sewu xeet yi bu ko kenn fekkee man ak yow rek yàlla na ko maa bañ yonent bi yenn loxo yu jooy yàlla na ko bul jooy. Hmm. yow sa doo ko fekkee. man ak man ak ñoom rek. yàlla ne man ak Tidiane Dieye man ak Essa kon kenn du ca xam dara. loolu hmm. yëpp yërëm bu yàlla defal xeetu Seydina Muhammad bi. sallallahu alayhi wa sallam. oustaz dafa mel ni waxtu waa ñoo xaw a xocc. Mhm. boo defee rek ñu tàggoo ah joxe dig daje ëllëg si talaata ji incha allahu rabbi pour kunta continuer waxtaan wi. ah ñu dellu waxaat nit ñi rek ne leen lii buñ ko bàyyi gannaaw muy sanitizer bi ndax nañ ci jamono boo xam ne ci jamonoom lañ ne jamono setal ndax suñu wér-gu-yaram mun na naat ah di gërëm kër gi alaaji Aboubacar Bathily ak soxnaam Oumy Bathily fii ci Sahel Network TV waaye nag ñu ngay gërëm imam ratib di ko jaale Ibrahima Mbaye Khalil doon xaritam doonoon xaritam doon xariti ñëpp moo génn àddina barki démba ñu ngi koy jaale waa Banjul yëpp oustaz looy tëjee li ñuy tëjee rek mooy nuyu mbooleem ñuy topp tabaarakallaahu Sahel Network TV bi di leen wan rek ne weeru koor ngoog waxtaanu koor fii ci Sahel Network TV seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Guèye nga xam ne tabaarakallaahu tey rek euh, mooy waa bitim réew ñu bëri ñu ngi ñuy jot di ñu wan ne tabaarakallaahu ñu ngi jot waxtaan wi fii ci Sahel Network TV di leen wax rek nag tappe leen ko ngeen tabaarakallaahu like page boobu nga xam ne de leen ko seetaan seen doom la seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Guèye moo leen di nuyu fii ci Banjul ci bésu altine bi ci Sahel Network TV fas yéene nag ànd ak yéen ci waxtaanu koor bu soobee yàlla nii rek lañ koy toppee diko waxtaan ak yéen man ak alxaaji isa mbay ak yenen xéti doxalin bu soobé yàlla pour di len waxtaanal lan moy koor ak koor lan moko ko jóg génne nañ nak ci yërmande gi yërmande ci lañ nek ba talata ak jamu incha allahu rabbi tayga Cement nek ci rewum Gambia depuis 2012 si njëkk valeur ak qualité pour nga mun a am liggéey bu mucc ay Tiger Cement ni ko moom di doomi réew mi mu jógee ko si factory yi gën a mag si Gambia ak Tiger Cement ñu mun a supply Gambia bi yëpp si xayma boo bëgga si njëg bu yomba waaw waaw réew Gambia bu ñuy sampa suñu néegi député yi ak liggéey yu ees yi nekk si University of the Gambia xel yi xalaatuñ fenn fu du Tiger Cement mën na réewu Gambia képp ku bëgg a tey nga semaine mun nga ko amee sa Brikama Basse Farafeñe ak Dia Oil station yi nekk si réew mi yëpp pour nga jël sa commande si nu mu gën a gaawee teggi sa téléphone nga tegga 770 80 80 714 72 73 762 49 70 330 1321 ak tey nga semaine sa liggéey dafay wóor te dëgg.